benn mbokk moo ma sànni xew-xew boobu xewoon ci eh, jigéen jooju yor turu malaaka <laughs> ñu di ko Gabriel eh, Gabriel Kaan eh, man tur bi rek ma gën a jaaxal ndax dama yaakaar ne bu doon ab jullit baayam du ko tuddee du ko wax Gabriel bu koy tuddee bu koy tuddee Jibril itam xanaa du ko tuddee Jibril yi alxuraan waru ko tuddee Gabriel yi tubaab eh, moo tax ma yaakaar ne du jullit ndax jullit eh, bu jigéen daal mënut tudd Gabriel te ya. eh, di nit ku ñuul te di sénégalais ndax kon soppi na jëmm ji bu soppiwul jëmm ji soppi na bi ci wax ci waxin man li tax wax yooyu daanaka samay wax da ci luutul bari man lii ngeen di kaas di yee waxoon naa ko ba ba ah jërëtul ma di ci wax te ba ma ba ci waxee dama doon xaru ndax booba ñi ci may wax bëriwul ah, ba may wax ne yéen a ngi yéen a ngi yéen a ngi yéen a def ay diil di dégg fii dem ci xalif général de Mouride dafa yóbbu ñoo xam ne seenu dem fa ci boppam ab jam-jam la ci ci yoonu Mouride gépp waxuma ci xalifa bi waaye ci yoonu gépp la booba kenn waxagu ko ba may ba ñuy tëral may tiri lii du yoon bu ko fi kenn def ah, ba yegg ci ne bu leen neexee ngeen ñëw rey ma waaye dinaa ko wax booba yàgg na yàgg na loolu ndax mu ngi bëgg a mat at bu ñetti at yi moom bu matul li ci des li ah, waaye yaakaar naa ne nag yuux googa moom day gën a continuer day gën a continuer maanaam li des ci fi nu toog jëm ci kanam moom ah, ci yoonu murit wii eh, maanaam liñ fi defati te du yoon moom danañ ko wax dinañ ko wax dëgg ni lii du yoon waaw eh, maanaam li yàq mbir mi mooy kolëri eh, gu yàgg ci say bàyyi lañu woon ak say maam ñoo àndoon demoon nga ci sama daara ja tarbiyewu ji maanaam eh, taalibe la moom kay ci ñi wër sëñ bi la bokk waaw eh, mu watam nelam ba mu set doo ci lekk ba suur biir bi mu takk ndigg li waaw ñëw <laughs> daal taxaw taxaw taxaw te doon koo xam ne kii saay nax ko moo gën a yomb sax ndax as ngone moom daal doy daal doy daal gars yi daal ku ci xasa man daal xalifa bu toog daal dana am ñu la wër ñoo xam ne ah la ñuy bëgg mooy bala nga fee jógee ñu doon milliardaire boo fa jógee ñu dem Dakar jënd seen building tabax te jaaxaan denc seen i milliards loolu dafa war a jeex ci réew mi maanaam seen bi ngeen bëgg a def buntu wutukaayu alal dafa war a jeex waaw dafa war a jeex ci réew mi man nu ne doxalee manam li bi ma koy seetlu yàgg na nu ne doxe nako, ko nu ne rek doxe nako, ko waaw pesin bu ne rek jaare naa ko ci la nga xam ne ëpp na fanweeri at eh, sol naa ay yére yi yemaay ñëw nuyu sama sëriñ jox ko ñaar fukki dërëm ñu ba ma xama ca ba dégg sol naa yu bëri këcc ngàmbam saak dikk yoxee deux cent ñu fat ma ca sori ya biir ya. lu ne def ci ci biir kër sëriñ bi te te jàng laa ci jublu woon ndax dama ci taxoon ma jublu ci jàng mooy ñii daal niñ organiser eh, mbir mi eh, te sëriñ bi moom faaxiru sey ila ci mënu ci dara lu may dañ koo takk takk taxawal bu leen neexee ñu ne ko tëju na bu leen neexee ñu ne fàttu na bu leen neexee ñu ne mu ngi fi bu ne nekku fi yooyu yàgg na ci yoon wi yàgg na ci yoon wi te kenn mësu koo ñimee ngaang ne danga koy wax waaye nag eh, ñi wër sëriñ si daal seen tappale yi bari na lool waaw bu di tax kenn du ma gis ci kër sëriñ bu ma dikkee du ma gis sëriñ ba ñooñu laa njëkk a gis te ñooñu dañ maa mere kon duma ma fa dem waaye xam naa ne day na waar daal ñi wër sëriñ bi daal seen tappalay bari na lool waaw ndax doo leen di dofee wuleen ko waaye da ngeen def seen bi bitig boo xam ne da ngeen ci wuti alal bala ngeen koo ñàkk gis ndax eh, man toog naa ci sama kër sëriñ ba tay yi nit ñëw bëgg a dugg te keneen nit jaar fee joxe junni ñu fi tas ko ne la ñu fi test ko foo mu dem ba foofa ñu wax ak moom yónni ñetti ponkal ñu dikk euh, dara bunt bi yundu ana mu ne mu ngi nii kaay keneen bëgg a dugg sax sax dama waaye déedéet ndigal la kii dañ ko soxla kii dañ ko soxla kenn soxla ko sëñ bi sax mi ngi fi maanaam yéen kër sëriñ daal ay bitik ngeen ko def daal pour utukaayu alal fi mu ne kenn ku nekk yaa ngi yàkkali ku ne siiw ne sa waaye dund gudd fan ba ba yéeg ba balaa wàcc fekk nga yéegi ci loolu mu ngi ci yoon bi waaye kenn du ko wax ana ña fi nekkoon di coow doon ay porte parole ba ñu nekkee ay milliardaire ña nga ndakaaru jaaxaan kenn déggatu leen ca yeneen i ak yeneen i ndax dañ doon utte am nañu am na loo xam ne ah ginnaaw mënu su ko dindi ci yoonu murit ah nu bàyyi ko ci noonu rek waaw ah, nu bàyyi ci noonu rek te xam ne Sëñ Tuubaa moom dundee wutoon ak nit ñi noonu waaw ah, loolu moom lu wér péng la Sëñ Tuubaa moom kenn mu sañimee jël ko ak di ab mu mu ak ndaw mbaa seen fukki xel xalaate ne dinaa indi jigéen ci kanam seen tubaab seen junni xel mu si ko xalaat wax naa leen ne jenn jigéen rek lañ xam juma ma sañu toog dand seen tubaab lu mat ay ñeenti mètre mooy yaay Ablaye Wade ci histoire man kooku laa ci xam te ba mu fay ñëw moog si ma arama ànd ndax boobu mi ànd ak mam Mor Toole mi mi jur Ablaye Wade waaw ànd ak sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ Massamba Diop Cham ñu fekk ko sëñ ma Massamba Mbacke rek sëñ Tuubaa histoire kooku laa mas a xam ci ne dafa ànd ak borom dik, eh, dikk ci histoire kooku laa ci xam te pas-pas ba ko mom moom la ko sëñ Tuubaa wooyee ndax xelam xalaatuloon faa dem nett yoon naa leen nam demee yëpp bañ dikkee denc ko ca ca kër ca kër sëñ Masamba nañ dem ba ñëw ci sëñ Tuubaa ñoom eh, di wax yow nga ak mu ne man doo nga ànd mu ne murtal yow doo nga ànd mu ne mu ne murtal yow doo nga ànd mu ne sama soxna de waaye fii dañ ne jigéen di fi ñëw jigéen du fi ñëw mu ne dem leen indi ko kooka pas-pasam indi na ko fi te te dëkkam ba mu dëkk la waxee ne damay dem njaareem dem ci sëriñ bu mag boobu ci njaareem ndax mu ñaanal ma ma am doom ju baax borom këram ne ko foofa jigéeni jàmbur du fa dem dama bëgg nga déglu baax li ma wax foofa jigéeni jàmbur du fa dem jigéeni jàmbur jigéen ji doon dem jàmbur du fa dem mu ne ko kon ma dem ci jumaam jom jom tabax foofa ñaan fa dégg naa jumaa joojee lu fa waaye ñaan yàlla dana ko nangu mu ne ko kon de xanaa bu ñu demee nga ñaan waaye sëñ boobu moom jigéen ñi jàmbur du ko gis ñu jóge foofa dugg saxaar wàcc kees dugg saxaar wàcc njariñ ak coono boobu ñu sonn yëpp ba eggal soxna si dem ñaan ci jumaa ja toog di xaar borom këram sëñ Tuubaa yëg na lañ doon waxee ca ca ca foofa ma ne waaye ma ne daam daam dong ku dul daam doo daam dégg ngeen man man bu may wax dama wax lu nañ daam moom daam képp ku dul daam doo daam nañu nañ wax mu leer kenn ñu musu ko ñi may def lu dem noonu ñi nga xam ne nag ñoo fi mujj jamono tooge tooge jotaayu Sëñ Tuubaa jobootee njaboot gi bëgguñu kenn mer bëgguñoo jànni gan bëgguñu ku leen yóbbu ngeen eh, di ngeen di leen indi nit ñoo xam ne ñii am na nu ñuy comporté wu ci seen kanam donc buñ demee génn dem France def ay conférence wax ay musiba day na waar doy na waar maa ngi leen nettali ne mas naa waree fii sama fas dem dem dem dem xabaan eh, dégg na Serigne Saliou ñëw na fii te ca yoonam woowee la ñi bi doon xalifa ca yoonam woowee ca la ñibbee doon xalifa gis naa keroog ci néeg Serigne Saliou ba ginnaaw tàkkusaan mu def ñaari sest yoo xam ne yu ma yéem la ndaxam man ci keppaaru sëñ Saliou kenn xamuma fa kenn xamuma fa ndax ni ma doon demee ci moom te kenn du ma xam laa doon dem ci ñeneen ci kenn du xam aw aw sama war a dem yeew ko waaw ziyaare sëriñ Saliou te yàgg naa koo ziyaar ziyaar naa ko fu ne waaye mosuma faa feeñ ci lenn ndax man biir laa doon jàng nit ñi di xool biti ndax fa ma toogoon ci biir nit boobee mbooloo nga fa waaye gis naa sëriñ Saliou Eh, toog ba yàgg ma digg ci làmmiñam mu ne joxe loxo bi de ma mutu ko te man digg naa baat boobu xaw ma nag nit ñi dégg nañ ko déet waaye gis naa ku ñëw waaye nuyu ba mu ko nuyu sax si ñi ko a def te dégg naa ci kàddoom ju guleer nañ mu dugg ci nopp joxe loxo bi de ma mutu ko dégg naa baat boobu ci moom ñaareel bi ba kooku génnee ba dem mu toog ba yàgg dafa fëgg tànk yi dëstan ñaari loxoom ci lal bi mu toog ne si feet booba booba booba booba mu ngi kattan daa di arrière ba ca ñoqali ba ba ca ñoqali ba ba ca fa miir ba ca lal ba mu des ca ba mu yem fa ma def ni yurdu bunt bi seen ay jigéen ñi ñëw man sama xel moo ma ne jigéen ñi di ñëw moo tax Sëñ Saliou def li mu def nii waaye ah, jigéen ñooñu day jullit lañu waaye bañ duggee toog day am nañu dox diggante Sëñ Saliou ak ñoom ñaareel ba itam xam lal bi yaatu na te Sëñ Saliou sori na waaye jege da ngay seen yëg googu rek nga am ko nit ñu nekk ci biti di ñëw dikkaguñu nga xam ne ay jigéen ñëw ba daal di soppi sa toogaay defe noo xam ne nii duñ la man a jege. te ñooñu kenn indiwu leen ñoo nga ba seen tànk ñëw te ay taalibe yu jigéen la ñoo xam ne pas-pas la ñu am moo leen fa indi woon ngeen dem ngeen dem fekk rajim joo xam ne da ngeen yaakaar ne nit ki daal ah su su su muuroo ba jekk rek. mais mën la suba ne mën lañ rek boo dee seytaane te muur yi seytaane si muur la ndax seytaane moom seytaane rek lay mën a doon am na ay façon euh, lëbi yoo xam ne bu ca nit bokkee di ko défendre ba ñëpp xam ko war ngeen a moytandiku muy ñëw ci kër sëriñ bi di indi alal fii la waykat bi ñëwoon fexe ba potoxlu bañ jox ko autorisation ba muy reetaan naan lii moom jafe na kenn mënu ko ñu ko man bëriwul nangam nangam waaye defagoo ko de te gëw ma ne di nga ko def ci sa dund nga tabaxa Sëñ tubaa ab musée ñu ne yaa ko tabax déedéet déedéet loolu moom du mën a nekk sa bakkan sax mën na mën na cee des waaw maanaam kenn du la waaye boo boo balaa booba la sëñ bi dambalan rek matt ñu bañ laa limaale ci ci ay yëfam ndax bëggut a bokk yow dara te woowule ci boppam kon waroo ñëw ci moom ndax la muy digle defoo ko la muy tere boobu ca dara nit ki bu jógee Sëñ Tuubaa jaar penku mu jaar sow da ngeen koy xam nit ki bu jógee Sëñ Tuubaa jaar penku mu jaar sow da ngeen koy xam mun Muntaxa njëkku fii te sëñ Muntaxa mii du fi mujj te lu nekk gis nañ ko fi ku nekk gis nañ ko fi jamono ji nekkit am na fi doxalin lu nekkit am na fi waaye ku yéeg yéegaale say gaay ko wàcc wàcc moom dëgg péng la waaye ku yéegati te yéegaale say gaay na nga yéegaale gaa yoo xam diplomatie gaa yi xam protocole yaa ngi dégg gaa yoo xam àqi sëriñ bi gaa yi xam valeur gaa yi xam fi ko war a teg waaye gaa yoo xam ne li ci poos yi gaa yi ñëw dong lañ xool seen yoon ci la ca des sëñ Muntaxa boo ko yotoon vingt cinq milliards de dollars itam yëgu ko ay sa ka nafata ay soixante sept millions ko soixante judi nañ ko fii soixante sept millions judi fii da leen da bu taraxee di ñëw nañ foofu joxe juróomi téeméeri millions moom loolu ak soixante millions lu ëpp dafa tax ay nit topp di tal tal tal mel ni ay mel ni ay communicateur traditionnel te ñooñu ñooñu ko def ba ñuy gone lañ ko tàmbalee def ànd ak seen i baay ak seen i mag ca jamonoy Sëñ Abdu Lahat ba léegi ñu ngi ci loolu kañ la kañ la soowum ginaar ba ñuy ngalaa bi cuuj kañ la soowum ginaar ba ñuy ngalaa bi cuuj lan di wéli di wax ni taal léew léew léew léew ju benn fukki million nangam fi génn fii Sëñ Tuubaa bañ ko yàttee bañ du tey ku ko indil des na ko jox ko indil des na ko jox te loo ko indil lu dul yàlla ak mbaax ngëm yàlla ga ga moo ko ñor te moom lay xool ci doomu aadama yi fii yadi li karimin nafiin samadin la li daraimi moo xam taati min sulaytini rek moo xam taati min béykat yi ak ak ak sàmmkat yi ñëpp ci yem xanaa sulaytini rek oh, waaw waaw yadi li karimin nafiin samadin katabtu fi lbahri ani la amadu yadi ila nasara abidil maayi wa tini te gabriel moom turu nasaan la bu dem julli كتبت في الباري أني لا أمد يدي إلى النصارى أبي ذي الماء والتين yenn yàlla teg nu ci njub yenn yàlla teg ci bu ngeen di fi dugal ñoo xam ne ëllëg dañuy taxaw fi di défendre yeneen ni lobby te ku ci wax ñu waaye topp leen fële xanaa du bërki démb la ñëw leen fukki ak ñaar ngeen jël ko yéen kay amul lu ngeen di bañ naka ngay bañ a tey naan ñax ma buñ ko toggee ba noppi nga naan ñax ma loolu la ñuy mujjee ak yéen bunti nekk ñu ngi ñu ngi koy jaaree ak yéen waaye nag a ah, dox leen rek suñ tubaab moom kenn mënu koo tilimal te du tilim ba mukk yéen a ciy taqee rek de waaye suñ mun taqaa moom day wecc wecc wecc wecc lay def ndax ku newul wecc doo toogee doo toogee jotaay suñ tubaab suñ tubaab ku toog ci bangam bii rek ñu ne ko fi rek da ngay moom boo doon toon moom doo fi toog waaye nag ay ànd mo moo jarawut waaw nattu mënut a wees ngay nit ak yàlla ànd ak ñu àddina rek ñor waaw nattu mënut a wees ngay nit ak yàlla ànd ak ñu àddina rek ñor nattu mënut a wees ngay nit ak yàlla ànd ak ñoo xam ne sa dund gi profité dong lañ ci def te bari na ci ñu wër sëriñ bi di taltal yi wax profité dong ngeen ci def profité keese keese waaw ña ko doon def bu njëkkit lañ amoon jeex na euh, kenn faaleetu leen te ñu siiw la ñu woon ñu xamoon ne ñii dañuy profité ci yoon Sëñ Tuubaa ngir seen intérêt bopp yan yàlla tëm ci ñëpp tëg nu ci sellal euh, mas naa leen fee nettali loo xam ne euh, ba ma koy nettali joxuma leen ab dalil dama noppi rek te nag danaa leen wax dalil yu leer nañ ñi ca loola soxna si ñuy wax soxna Mati Ja muy doomi Serigne Mor Dia Layaabe eh, di jigéenam sëñ Abdou Dia ma nekkoon bëkk néeg bu Daaru Xuddoos Fatuubaa bokk bayte bokk ñu ndey di bàjjani sëñ Moustapha Dia Njañ mooma sama jaay Moustapha Dia nekkatu fi di bàjjani sama nijaay Cheikh Dia ak sama nijaay Baara Dia ak ñoom sama nijaay yëm ñëpp fi yàlla yàggal guddal seeni fan ñoom ñi fi nekk seen bàjjeen maam mati jax moom moo ma nettali woon loolu ma doon wax eh, ca jamono sëñ Tuubaa eh, soxna mati ja ci nii gi seeyi la bokk doomi ndey sams fa Mbàkke la ca biir kër ga lañ dëkkoon ba ñu génn ñu daggal leen seen kër ak bopp eh, yaayam di jigéen ak fa ci wàllu ndey mu nekkoon soxna Sëriñ Mor Fall mi nga xam ne moo doon rootal sëñ Tuubaa di ko jógee jaajëfal ca Touba di ko indi njaareem ñetti ati yàlla lépp lu mu jàppee mbaa mu mbaa mu jëfandikoo ko ci wàllu ndox sëñ Mor Fall a ko root sëñ Mor Fall moomee ci yëpp mooma yar ndax ca biirum a laa doon fanaan naa ñu ko nettali mbaa mëti ca mooma ko nettali tappale yi doon am ci yoon ci kër sëñ Touba jamono ji mu fi nekkee waaye moom moom bu mu ko fajee la jeex xam nga ña doon sàcc xaaj di ko dëggal ci seen ci seen ci seen plafond néeg yi ba ba ñu roñee ba deel sëñ Touba daa daa daa as ngone soo xam ne Eh, toll na ci fer waaye ràññeekul dara ne dem wutal ma ab ab ab bantab sirène bu gudd ñu jox ko bantab sirène mu jox ko ngone si ne topp leen ko te bu leen ko laaj fu mu jëm fu mu jox ko rek ubbi leen ko ñu jiital ko dugg ci biir kër yi kër yam duggoon xam naa <laughs> xam naa lii kër yëpp laa waaw fu mu joxoon rek ñu dajji foofa dërëmi ngur di ne biir biir biir biir nekk ay ay ay ay ay ay ay saako yu ndaw moom eh, yëpp Mamadou Dia wax na ma ko dugg na kër diw duggoon na kër diw duggoon na kër diw. Euh, kon xam nga li may li li maanaam ni ma mel nii eh, dañ ma cee formé maanaam bi ma nekkee xale li ñu ma doon nettali loolu moo tax ma màgg rek karaté di kaas <laughs> waaw ne lii moom daf fee war a jóge topp ci sëñ di tappale ngir si fi moom dañ ko fee war a jëlee ah, xam nga eh, ma naa fi bu yàggul ne eh, nañ leen def benn daayira boo xam ne dañuy ubbi benn compte de ko compte sëñ bi sëñ Touba. Euh, murit yi ci àddina yi wër garal kàpp nag amul benn kër ci këru murit goo xam ne euh, duñ la ca boole nga xam ne du doon daayira bu ñuy dajaloo di dajal xaay jox ko ma Samba ak ma dem ba ñuy jël ay mbubb sol dem di jox sëñ bi ñuy jàllawlante waaye dañuy wax rek ne euh, ñaar fukk ak juróom-ñett yi sëñ Tuubaa laajoon ca ca ba ñuy defar jumaa ji Eh, nañ ko def fukk ak ñaar mu di at eh, murit bu ne dugal ko ca compte ba rek globalement rek dugalandoo ko fa ba noppi nag te compte bi xalif général de murit la ciy bind nga xam ne moom dong moo ko mën a décompté ah, ndax dañ bañ defee étude ne eh, deux millions de personnes bu un million de personnes bu ko nekk joxee <laughs> bu nekk joxee cent franc dañuy am un milliard deux cent millions boobu laa ne loolu mën nañ kaa def waaye bi ma ko lancé fii am na ñu ñu ñuy wax naan am na ñoo xam ne buy jiitu rek lañ bëgg am na ñoo xam ne kilifteew lañ bëgg man ba ba may dee sama ah xanaa sama waa kër te dama ka mënut a ñàkk ilif waaye du ma ilif picc waaw waxantuma nit ndax man xam naa ku ilif nit ba yomal xiyaam yaag nit ka fan ngeen di mujj waaw ginnaaw xam naa nag ku ilif nit ba yomal xiyaam fan ngeen nit fan ngeen mujj ak nit kooka man gàcce keroog googa du ko fekkee mukk ñu di ma ca boole xalaatuma ko waaw te suñ tubaa nee na bari waa na ko jum mbooloo ko topp ko tëngam ko coolo ne comboy yowmal xiyaam ñu mbokk ci sama mbooloo te moom ñi mu àndal ñëpp safara lañ jëm loolu yàgg na ko wax ba tey suñ mu dem nettali na ko bàyyi sëñ Abdourahim dem nit ñi dégg lañ ko ñu xa ñu nekk xam nañu loolu waaye ah, lii du tey yàgg na waaye dañ ko séqoon ak koo xam ne moom xamoon na seen ak fiiw te mënoon na koo fajal boppam yaakaar naa ne ba ngoon a soosee ŋàbb ŋàbbee bantam booba dugg ci kër ay kër kër maam diw kër maam diw ak kër maam diw ak kër maam diw ak kër maam diw kër maam diw ma ne dugg na fa waaye maam diw yooyu duggoon seen kër yëpp dañoo dajji seen palafanaas yi tewil yi xaalis bi di yuri ko ñu di ko dellawaat ca kër ga loolu amoon na foofu ci biir kër Sëñ Tuubaa tappale yooyu ñuy tappale yàgg na foofu noonu waaye booba ñooña sëñ bi dafa ma sëñ bi dafa dafa nekkoon koo xam ne dafa am paal ci loolu ñu koy jox dañ ko daa roñ ne xoronam di roñe rek di yóbbu waaye yaakaar naa ne ba mu ko bëggee xañ delloo siwaatal nañ ko ko donte donte amu ca soxla delloo siwaatal nañ ko ko pour moon leen ne ah, li ngeen def xam ko dara umpul ma ci loolu yóbbu ta xam ndax ki ko wax rakkal ci sax Moussa Mbacke doomi ndeema santul Mbacke nag waaye doomi ndeem la haqiqatan eh, moo ma ko nettali ma nga ci àllaaxira maa ngi ci àddina te du ko dural mukk loo xam li waxul ma ko waaye loola doon am ci jamono sëñ bi ba léegi mi ngi am waaw ba fi mu toll nii mi ngi am talifa bu toog rek ay gars yit seen i mbuus waaw di dajale daw di yóbbu rek waaw <clears throat> sa soxna siñ bay takk sa doom bi mooy mooy ngénte si yére moo la koy jox sa dundam kër suñ baax gàddu loolu nag yóbbu waaw loolu nag yóbbu waaw am na ci xalifa yi xalifa boo xam ne ah, daa amoon ko dend ak moom bu gisee oro ne ko sëñ bi lii baaxut waaw <laughs> bu gisee bu gisee gisee dollar ne sëñ bi lii baaxut liitu xaalisam réew mi di ko teg fee rek di dajale yóbbuy denc waaw euro ak dollar daal moom si sëñ bi da ci jot moom moo ciy jot ba jamono eh, def na ñu yónni ko fenn sëtub sëñ ba ñoo toog fa mu toogoon ñu joxe xaalis ba dikk di ko joxe eh, maam ji ne ko génn ci bii bii baaxut <laughs> génn ci bii bii baaxut mu ne ko bii maam mooy waxi la bii baax na ne bii xaalisu euro la bii xaalisu dollar la mooy xaalis yëpp doole ci àddina bi mu ne ah kon li diw du ci jeexle ndax saa yu toogee fii da koy génn teg fee bu noppee sànni ji ko tax nee na bii baax nee na bii bii xaalis bu baax xam nga loolu kon xam nga mi ngi am mi ngi am mi ngi am ci seen biir waaw loolu nag ñu bëgg koo tabax yoon wi rek mu jëm nag ilaa ajali musamman ñu ne nag loolu moom kenn du ci wax kenn du ci wax sëñ bi daal boo ko xasee jege moom jombaate nga ñu wax la dëgg ne nii la nii la dañ leen koy wax toog ci kër gi liggéey sëñ Tuubaa moo ma gën ñëw moo ma gënal ñëw ba ci sëñ bi toog fi te te te nekk ci naa fekk mbaa ma gisee dul dëgg ti du ma ko wax góorgóorlu leen dañ leen di jàppale rek ak bëgg ak bëgg lu dañ di jàppale rek ak bëgg lu jag ak bañ ab jam-jam ak bañ ab jam-jam wootekat yi diine yi nekkoon ci àddina wootekat bu nekk utal nañ la sam sa sa sa sambal woo xam ne moo la lang amul benn xalifa buy toog te du ci biir ñu ko wër ab agent secret bu nguur gaa ngi ci loolu moom jëru sax ñu di ko werante waaw amul benn xalifa buy toog laa la wax te du ñu ko wër ku ciy waxali buur daraa ngi ci ba Sëñ Tuubaa bëggee dem seeti imaam Xasaali la xaw ma euh, kum ci doon rakkam ja rakkam ja ca xuru tubaab ko dégg naa bëgg dem xuru Mbàkke waaye doo fa dem euh, ba ko ba ko xale ba ko waawul kan moo leen ko wax lu ko tubaab ba wax daal laa ma pos bi génnew kayitu dërëm ne ko moo ko wax kii moo ko wax kookaa nga fa ba léegi ñooñaa nga fa kookaa nga fa waaw ka doon jo ka doon joxe kayitu dërëm ngir xam li euh, ngir xam programme Sëñ Tuubaa Ah, nit a nga joxe ay million ngeen xam programme bi Sëñ Muntaxa ngeen nangu ko nag ak ngeen bañ ko nangu loolu moo fi ne ndax ñun xam nañ ne noonu la demee waaye nag yenn yenn yenn organisation yi daal yu feeñ yi moom yu nëbbut yi ngeen di mbakkar fegg moom mën ngeen cee continuer amul problème waaye yenn yu feeñ yi daal moom ay nit koo xam ne kii de ci lobby yi lay défendre di défendre ay avortement sexy xaw ma avortement médicalisé la xaw ma di di di di défendre euh, euh, liberté euh, ay lu ne ay yu ma mënta wax daal yoo xam ne jëruma di ko wax ba ñëpp xam ko ci mu dikk ñu jox ko kàddu ci réew mi mu dikk toog indi juróom benn fukki million ak nangam ñu indi télévision bi di ko tëlti tëlti naan di jox na fi lii di joxe na fa laa ñaanal ko li mu bëgg na ko am na ngam dugg na fi génn fii siñ bi ñaanal ko ngir mu bëgg ci lancé woo ndax murit yi moom bu ñu gisee mu toog ci këram Sëñ Muntaxa mu ñaanal ko rek bu duggatee ci réew mi lu mu wax ne waaw lu mu ah kii kat bu dootoon nag nga xam kese bi daa kenn dugg benn fukki million dafa joxe ñaar ñaata nit dafa joxe lépp juróom-benn fukki million ko am na ko kon juróom-benn fukki million yooyu bu duggee joxe ko ngeen di ko ngeen di ngeen di ko médiatiser ay journalistes yi international national topp ko ba mbir mi dem fu ne da da ngeen di xam ne loolu archive lay doon ëllëg ba bañ indee te fu kayit ne suñu Muntaxa signal fii ñii dañ koy xeex. su boobaa danañ ko ne ah lii lii nga lii ñu si signaloo de ki koy ki ki jiitee ki ko jiitee ko wootee moo la joxoon fii juróom benn fukki millions ya mbaa ñu demee noonu daal nañ góorgóorlu daal waaw pax yi daal ñu ngi koy gas tëb leen pax yi maa ngeen maasale ko waaye ku sàggan ba dugg ci pax yi nag yaa ci des